wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina shaytaani rajiim rabbi inni a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki am di jàmm di ñam suñu boroom subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmandeem moom yàlla ak ay jéggalam rawatina mbokk yi nga xam te ni dañuy teewlu jataay bi fu mu mel ni kon dañuy dellusi ci sunu jotaayu yóbbalu ndaw ñi muy jataayu fàttali ak jàngale ci téere bii ñuy wax tasaw tasawwadu sixaar waxoon nañu nag ci tàmbalima ba ne téere bi sëriñ bi daf ko xaaj ñetti xaaj xaajum njëkk ba moo doon jàngale ci tawxiid xaajum ñaareel ba di jàngale ci fiq xaajum ñetteel bi nag di jàngale tasawuf mooy imaan ak islaam ak ixsaan mu mel ni iimaan ak islaam muy xaajub njëkk ba ak xaajum ñaareel ba jàngale woon nañu ko ba mu jeex sunu bind bi ñu mujjee jàng moo doon jeexal xaajub ñaareel bu mooy fiq mooy bunt bi doon jàngale ci biir julli bu la imaam rawee nan nga koy fayee ak waxtu yu julli yi fi ñuy tàmbalee ak fa ñu yam kon nag dañuy ñëw ci xaajub ñetteel bi mooy xaaj bi jàngale tasawuf mooy ak rafetal te tamit mooy ak taalibe ñett yooyu yëpp mënees na koo tuddee mu ne baabun lii ab bunt la fil ixsaani ci rafetal ixsaanukum seenuk rafetal yaa ayuha sibyaanu yéen ndaw ñi li man ñeel na yàlla ma nga xamte ni lahu ñeel na ko al arwaaxu ruux yi wal abdaanu ak yaram gi mu ne yéen ndaw ñi kat seenuk sellal seen digganteeg seen borom bi nga xamte ni seeni ruux ak seen yaram moom yàlla képp moo ko moom an taxbudu mooy ngeen jaamu allahu yàlla ka annakum ba daanaka yéen maxaa mboolem seen tarawnahu da ngeen ko gis fattabihu na ngeen topp maa la nga xam ni saraxa yoonaleef na ko mu nekkoon kon seen tasawuf mooy sellal ci seen digganteeg seen borom na ngeen xam ne jaamu yàlla gi leen suñu borom sant boo leen koy jaamu na ngeen ko jaamu ba mel ni yéen ci seen bopp sax daanaka yéen a ngi gis seen borom mi nga xam te ni moo leen sant jaamu yàlla gi kon nag na ngeen topp la nga xam te ni moom la yoonal ci yéen mooy jaamu yàlla mu ne nag in lam takunu ndaal ndéem nekku leen xadra aytumuhu di ko gis moom yàlla fa moom yàlla yaraa dana gis alkulla képp ci yéen faraaxi buuxu kon na ngeen foglante ak moom mu nekkat boo leen di jaam yàlla na ngeen mel ni suñu boroom yéen ngi koy gis ndax kat boo bàyyee xel ci ne nit ki bu ko moroom nitam doon liggéeyloo te mu nekk koo xam te ni daf koo fonk lool bëgg ko lool jox ko ëpp cër mu koy liggéeyloo benn mbir ba pare taxaw di jàkkaarloog moom ca lam koy liggéeyloo kon kooku yaakaar naa lépp lu mën a def ba liggéey loolu liggéey liggéey boobee mu nekk liggéey bu rafet boo xam te dina yaakaar ne nii kat ko kilifaam liggéeyloo nii la ko bëggee dina ko def kon nag na ngay bàyyi xel ne kon li la suñu borom sant muy jaamu yàlla gi suñu boroom mi ngi lay gis bu dee amoo pas-pasu ne yow yaa ngi gis suñu borom fagam amoo pas-pas ne yaa ngi gis suñu borom nag ñaareel ba moom na la wóor ne moom suñu borom mi ngi lay gis ci lépp looy def ak fépp foo mën a nekk ak lu mu ruqe ruqe ak lu mu sori sori mu ne moo tax mu ne kon nag faraaxi buubu na ngeen foogloonte ak moom foogloonte ak yàlla nag mooy lan mooy ngay bàyyi xel ci lépp looy def ne suñu borom mi ngi lay gis booy lekk ak booy naan ak boo wéeteeg boo ngay bàyyi xel ne kon suñu borom mi gis loolu mooy foogloonte ak suñu borom ndax loolu daf lay tàggat ci sax nga am jikkoy dëgg-dëgg tasawuf ndax day tax lépp looy def rek mu ànd ak sell lépp looy def yàlla rek tax kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon na ngeen jaamu yàlla ba mel ni yéen a ngi gis yàlla boo leen gisut yàlla nag na ngeen xam ne yàlla moom mi ngi leen di gis te yaakaar naa ki nga xam te ni dalay gis te yow gisoo ko kooku nga war a gën a bàyyi xel sax ci ki nga xam te yaa ngi koy gis mu lay gis. kon kooku nga war a gën a bàyyi xel kon na bàyyi xel seen boroom ci seen lépp loo leen di def mu ne in taqsidu ndeem namm ngeen in taqsidu ba tey ndeem jublu ngeen almaratiba daraja ya alxaliyata yay aji kawe fas fastaxmilu na ngeen jëfandikoo bi haazihil wasiyata ci bila dénkaani mu ne ndeem namm ngeen jublu ngeen daraja yu kawe bu dee bëgg ngeen suñu borom gërëm leen ngeen am ngërëmal yàlla suñu borom yëkkati seen daraja ngeen bokk ci gaa yi nga xam te ni seen daraja dañoo kawe lool am ngërëmal yàlla bu dee bëgg ngeen loolukat kat da ngeen jëfandikoo sama dénkaane bi kon dénkaane bi dénkaane bu jar a bàyyi xel ndax ku nekk di ab jullit di selal bëgg nga suñu borom yëkkati say daraja bëgg ngaa am ngërëmal yàlla bëgg ngaa bokk ci gaa yi suñu borom kon loolu lu jar a bàyyi xel la te loolu nag dëgg dëgg li koy maye mooy tasawuf mooy sellal ginnaaw bu jëf yépp weexoo nag sellal rek ndaxte kat buñ ne tasawuf mooy xool mbiru biir yi ci biir ndax fiq mooy lay defaral sa jaamu yàlla ci kaw ñi nga xame ne noonu ngay jàppoo nga yàpp jàpp na nga war a jàppoo ñi ngay jullee nga julli na nga war a jullee waaye nag tasawuf mooy ñëw nag xool ba xam bi ngay jàpp ndax xam nga ci la cay farata ak la cay sunna ndax xam nga ne jàpp gii ngay jàpp ndax yàlla moo tax ndax julli gi ngay julli yàlla moo tax ndax boo wéetee nii ngay jullee ndax li nga nekk ci nit ñi kat moo tax ngay jullee nii loolu nag tasawuf mooy sellal dëgg ba nga xamee nit kii dina dem ba lépp lu muy def rek yàlla rek ay tax kon tasawuf mooy lijjanti mbiru biir yooyu kon tasawuf di lu am solo sëriñ bi nee kon dénkaane bii ma leen di dénk bu dee bëgg ngeen seen boroom am gërëmal seen boroom seen boroom yëkkati seeni daraja mu nekk ci daraja yu kawee na ngeen jëfandikoo sama bii dénkaane boo leen bëggee am ak tasawuf ni ngeen jëfandikoo sama dénkaane bii mu ne xaley xalaykumu dénk naa leen bil xilmi ci xam-xam mooy saako xam-xam wal xayaa i ak kersa wa shukri ak sant wal ixlaasi ak selal wa saxaa i ak tabe mu ne kon dénk naa leen na ngeen di sàkku xam-xam xeetu xam-xam yi nañ leen di sàkku xeetu xam-xam yépp di sàkku xeetu xam yi nga xam te ni xam-xam yu am njariñ la yu leen la sàkku xam-xam nag dafa yaatu lool te dundu doomu aadama nekk dundu ko gàtt kon nag moo tax sëriñ bi ne boo leen di sàkku xam-xam na ngeen xool xam-xam yi nga xamee ne mooy yëwénal seeni diggante ak seen borom li leen suñu borom sant nga xam ne lii kat mooy leen suñu borom sant mënta ñàkk lu mel ni julli juróom nga xam ne yii kat yéen koy defal seen bopp na ngeen fexe ba njëkk a xam loolu na nga fexe ba tawxiid fiq ak tasawuf nga xam ci loo xam te nii kat diñ ci mën a yóbbaloo ci say xeetu jaamu yàlla ak li la suñu borom sant kon loolu mooy farata ji nga xam te ni moo njëkk di farata ci sàkku xam-xam na nga fexe ba xam lu lépp loo xam te nii sa wàllu jaamu yàlla boo ko bëggee di nga ko def na ko suñu borom digalee bu dee nag amoo ngir xam xam-xam boobu na nga fexe ba it lépp loo xam te nii soxla nga ko ci sax xeetu ni ngay jaamoo yàlla nga xool koo xam te ni ku ko xam la ku maanu lépp loo ciy dugg balaa nga cee dugg nga laaj ko ko ba mu leeral la ko ndax loolu kat farata la ginnaaw nag boo xam loolool ba pare nga fexe xam lu xeetu xam-xam yi nga xam te ni boo ci géejoo di nga mën a gën a géeju ci xam-xam ci wàllu yu bari kon xam-xam mi ngi noonu sëñ ne kon na ngeen sàkku xam-xam mu ne walxayaay ak kersa kersa nag bu ko waxee mooy sa diggante ak sa borom da nga am kersa ci sa diggante ak sa borom ni nga xamee ne noonu ngay amee kersa ci diggante nit ba lépp looy def rek bu la ja fekkee bu dee loo xam te nii kat du jaaduwut la nga bàyyi ko bu la fekkoon ngay xuloo sax wala ngay jàppante ak nit nit koo xam ne dangaa am kerse ci sa diggante ak moom bu dikkee la nga jàppoon lépp nga bàyyi ko mu ne na nga am sa digganteeg sa borom kersa goo xam ni nga wéet ak nga wéttaliku lam la diggal rek ngay def lam la tere nga bàyyi ko kon kersa lu am solo la am kersa ci sa diine fu la diine fekk fa lay fa fa ngay yem fu mu ne yem fa fa ngay yem ak loo nekk ci biir kon loolu mooy kersa sa diggante ak sa borom ak loo nëbbu nëbbu am amal sa kersa sa diggante ak sa borom mu ne wa sukkure ak sant mu ne tamit da ngay sant yàlla de ci xéwalam yi nga xam te ni moom la defal sant yàlla nag lu yaatu la waaye boo bëggee sant bu mat faw nga tënk ko ci ñett yi mooy fas ko ci sa xol sant yàlla ci xéwal gi la suñu borom defal ci sa xol waaye nga sant ko ci sa làmmiñ mooy nga wax ko waaye nga jëfe ko sa ci say cër ñett yooyu mooy ñetti sant ñi nga ni ku ko boole sant nga sant bu mat kon ñett yooyu jara bàyyi xel la na ngay sant ci sa làmmiñ waaye ngay sant ci sa xol fas ko ci sa xol waaye na ngay sant ci sa jëf kon ñett sant yooyu sant la yoo xam ni ku ko matale matale nga sant yi gën a kawe lépp looy def rek nga xam ne suñu borom moo la ko xéwalee nga sant ko bu dee ci sa làmmiñ mooy nga tudd ko bu dee ci say cër nag mooy nga jëf yim la sant yim la digal waaw yooyu mooy sant gi gën a kaay nga jëfee lim la digal te lépp loo xam ne daf koy tere nga sori ko ba doo ko jege kon loolu mooy dëgg-dëgg sant kon bay na ñoo xam te ni ñi ngi sant ci làmmiñ dëgg la baax na alhamdulilah yeneen xeet sant yu bari waaye nag fas ko ci sa xol de jëfe ko ci say cër ah faw mu am ci boo bëggee sant gi mat waaye fooy toll naa alhamdulilah nangam rek baax na de waaye nag jëfe la la sant lam na tere nga bañ koo jege bokk na ci sant gi waaye fas ko ci sa xol ci lépp loo xam te nii da nga xam ne lii suñu boom moo la ko xéwalee nga sant ko ko ndax Sëriñ Tuubaa doon na wax di firee aayab alquran bi ñuy wax wa in taxuddu laa tax taxsuha doon na wax ne bépp nooy bu génn ñëwaat sant yàlla la yëkkati sa cër mu yëkkati ko nga bëgg a yëngal sa loxo yëngal ko lépp looy def rek duggule ci wa in taxuddu laa tax taxsuha suñu borom nee na boo leen doon lim li nga xam te ni moom laa leen defal ci xéwal waaw ah, du jeex mukk de du jeex mukk sëriñ bi ne waaye in taxuddu kon nixmatallaahi laa tax suuxa na nga xam ne lépp loo bëgg a def rek yëngal sa cër mu yëngatu xeef xeef say bët mu xew noy yi muy dem ak ñëw lépp rek nga xam ne ci xéwali yàlla yi ci la bokk kon nag sant yàlla sant gu mat wala ixlaas ak sellal sellal gi nag mooy tasawuf comme ni mu la ko waxee woon léegi lépp looy def rek na ko natt ba xool ko ba xam ne lii kat yàlla rek moo tax nga koy def mooy ixlaas sellal mooy dëgg-dëgg sellal nga xam ne lépp looy def rek natt nga ko ba xam ne lii yàlla ay kon sellal gi moom mooy yëkkati jëf yi ko ci kaw ginnaaw boo jëfee lépp ba pare nag gi mooy ñëw matal lépp kon tasawuf mënta ñàkk ci mbir sellal mënta ñàkk ci mbir ndax mbir moo gis sellal rek moo koy yëkkati waaw ginnaaw bu lépp matee sellal la mooy ñëw yëkkati lépp yóbbu ko ci yàlla nga xam ne jëf ji moom yàlla rek moo ko tax a jóg yàlla rek moo ko lal ndax bu ko leneen lalee rek jëf ga des na kon ci lu jara bàyyi xel la kon sëriñ bi nee na dénk naa leen sàkku xam-xam dénk naa leen kersa seen diggante ak seen borom dénk naa leen ngeen di sant yàlla ci xéwal yi mi mu leen def waaye dénk naa leen ngeen di sellal seen i jëf wasaqaa yi ak tabe mais tamit na ngeen tabe de tabe nag mooy joxe sa alal te alal rek tax bokk na ci tabe dëgg dëgg tabaay yi nga xam ne dañ koo sopp ginnaaw boo defee li la suñu boom sant nga xam ne lii moom suñu boom moo ko sant muy asakaak mburum ko rek xeet mel noonu yëpp nga def ko ba pare nga def yi nga xam ne da nga koo def rek mu leer na lii da nga def te yàlla rek tax te sàkku tiyaaba rek nag mu la ci dugal te yàlla rek tax muy génn sa di ko joxe ngir dabu ay tiyaaba sa coobare yi bopp nee na tabe googu nag mooy tabe gi nga xamante ni moom lañ gën a sopp te tabe moom lu kawe la ndax ku tabe nee nañ bu dee ab ku du jullit sax bu tabee suñu boom du ko lakk kon rawatina ab jullit kon ab jullit war naa fexe fu mu toll fexe nekk ku tabe koo xam te ni lépp lu muy def rek yàllaay tax booy joxe nga xam ne alal ji ngay joxe yàlla rek tax ci sa doole nag ma ne nga ja tabe yow mi am doole ngay dimbali ci sa doole sa kàttan gi nga am di dimbali ci sa ñaq lépp ci tabe la bokk yàlla rekk tax mu ne maa ngi dénk wasumti ak noppi wal xel mi ak lebet dada taxall mi fa jànguwaay ba wa sabri ak muñ wal waraxi ak sàmm wa tafahumi ak dégg-dégglu mu ne ba tey dénk naa leen kat na ngeen di noppi waaw noppi nag gi waa ahlu tasawuf di wax nag mooy bépp wax boo xam te nii amee woo ci tiyaaba amee woo ca dara lu jëm ci yàlla wax jooju nga bàyyi ko nga xam ne lépp looy wax rek njariñ la wala zikkar la wala ak sellal la waaye du doo waxat lenn loo xam te ni amul njariñ lu am solo la lu lu jar bàyyi xel la ndax li ngay gis nit ñi léegi dañuy nekk ci mbir moo xam te ni amul benn njariñ nekk ci suba ba ngoon di wax rek jëlul leen benn tiyaaba lu dul day ni perte seen temps te temps lu am solo la kon sëriñ bi nee na ngeen noppi ci bépp mbir moo xam te amalu leen njariñ te lépp lu am njariñ nag ngeen fexe dem ca kon noppi googu mooy noppi gi waa tasawuf bi nopp ci lépp loo xam ni amul njariñ du la jural tiyaaba lépp lu lay jural tiyaaba nga nekk ca mais na nga lewet tamit lewet moom lu am solo la jikko yaaraam la lewet mooy fexe ba doo wala boo meree nga fexe ba téye sa mer fexe ba téye sa ba doo ki def lenn lu lay yeddee loolu lu am solo la waaye nag boo meree rek lu la neex wax hmm, boo ko ci jikko yaaraam boo meree fexeel ba téye sa mer sagam mer mënta ñàkk rawatina nag lewet ca jànguwaay ba booy jàng di sàkku xam-xam ngay jiital lewet lool lewet dong nga xam ne mën a muñ lépp luñ la wax nga muñ ko lépp looy daj ci jànguwaay bi nga muñ ko wa sabri ak muñ muñ moom muy lépp ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne muñ mooy genn wàll diine kon muñ mooy lépp waaw lépp looy wut rek nañ ci jiital muñ ndax muñ mooy tax lépp looy wut nga am booy liggéey faaw nga muñ booy jaamu yàlla faaw nga muñ lépp loo dugg rekk faw muñ am ja bu ca muñ amul rek loolu ngay liggéey doo ko am waaw ndax faaw mbir mi mu metti njëkk muy neex waaw lépp looy dugg rekk faw mu metti njëkk muy neex kon na nga jiital muñ bépp mbir te xam ne lépp loo muñ rek faw nga am njariñ ya kon muñ moom lu am solo la ak sàmm wala walaaxe ak sàmm sàmm nag mooy nga fexe ba sa digganteeg sa borom lépp loo xam te lu lënt rek doo ko jege sikk sàkka yeeg lépp loo xam te nii nag dañ naa lii baax na ak bu ko jege loolu nag mooy nekk sa balance sa digganteeg sa borom ba nga xam ni doo dem ci ya suñu borom di tere waaw kon nit da ngay fexe wut sa balance sa sa borom lépp lu muy tere waxuma la nga dem ci waaye la nekk diggante ba nga xam ne fu lënt sax bu ko jege. loolu dalay tax nga nekk ku sàmm sàmmanteeg loolu ba nga xam te ni mooy dox sa baas ak dem ca digganteeg la nga xam te ni suñu borom lañ koy tere kon loolu lu am solo la ndax dalay dimbali ci yi suñu borom di tere wa tafahumi ak dégg-dégglu mooy na fexe di xam lu sa diine waaw xam lépp loo xam ne luy aju ci yàlla da koy xam lu di ko dégg-dégglu di ci jéem a jariñ booy jàng di jéem a xam nee ne loolu mooy wa tafahumi ak dégg-dégglu kon loolu lépp lu am solo la kon daa mel ni liñ amoon ci waxtu mat na ba daanaka dolli nañ ci lu xaw a lii sax waaye nag mbind mee ko laaj kon ñu yamale kàddu yi fii ba beneen jamono ci dénkaane sëriñ bi ñu yeggale ko ndax dénkaane yu am solo la des na ay bayit yu am solo kon ñi ngi ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak topp lu fi dëng nañu xam ne suñu jëmm yu xeew yi la lu fi jub nañ xam ne ci suñu borom la ndax mënuñu dara yàlla rekk mooy ki man kon ñu ngi jox dig daje beneen jamono in uridu ila al islaaha masataxtu ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi